ku baax maa ngi lay maa la ko delloo. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi jàmm baax bi. Fallou Mbacke la Fallou. Fallou Mbacke Fallou Mbacke di nga waaw dama koy seetaan nag. Hmm. waaw nga match Sénégal premier match bi. waaw naa ñu nag Gambie suivre naa ko. ñu kan moo organisé Coupe d'Afrique bi. Côte d'Ivoire moo ko organisé nan nga gisee Sénégal Gambie bi match bi. waaw match bi jaar na yoon parce que wax dëgg yàlla Aliou Cissé moom li mu teg ci terrain bi baax na changement bi baax na classement bi jaar na yoon ca li ñoo séentu ci sénégalais yi wax dëgg yàlla instant bi tasaguñ yaakaar ca yàlla bu ñu tas yaakaar amiin amiin wax dëgg yàlla li ñu ci yoon wi moom yàlla gën a yokk gën a jëm kanam waaw kay can xam ni ñun sénégalais yi ñu ngi fii mhm. mais ñu ngi seen ginnaaw incha allah waaw lépp loo xam ne dañ si ñoom ñu ngi koy jaayante ñu ñoo tax ñu koy jaayante mhm. ñu nit wax dëgg yàlla ndam rek la gis incha allah incha allah waaw waaw Maxi Côte d'Ivoire Guinée waaw waaw waaw Maxi Côte d'Ivoire. Guinée nan nga gisee ñaari équipe yooyu. waaw parce que ñoom ñaar booy xool daanaka tëwoo la xam nga. Mhm. waaw ñoom ñun man dama li ma jàpp instant bii. Mhm. Sénégal moom jàpp naa ne moom instant bii maximum bii di ñëwaat nga xam ne ñu nag waa fii la. Cameroun mhm. na jàpp naa ne lii ñu classement bi daw nii nii nii nii nii. su ñëwaatee dinañ am ndam. buñ am ndam waaw am ndam. mais mais mais bul fàttali ne Cameroun yi dañoo mën compétition nag. waaw ba pare tamit ñoom dañuy ñàkkante. parce que ñoom ñoo naar booy xool ñoo xaw a am ñoom booy xool dañuy foo xam dañ fay tëj bu ñu xasee am rek yow pour nga am du yomb mais Sadio comme moom mu ngi ci kanamu gars yi yaakaar naa ne ñoom xam na ni war a doxe quoi. mais mais te li ci garaaw sax gars yi nee nañ premier bi bi mu passe du passe célibataire de passe marié. marié la marié bi bopp bi gën naa nu mu xel mi gën naa màcc waa gën naa ubbeeku parce que jigéen. am na loo xamante ni si da koy dolli ci góor ca fu mu xalaatee rek ni ah. mu bàyyi ginnaaw rek day tax mu gën a mën a trouver quoi incha allah incha allah waaw kontaan nañ ci yéen tamit merci yow tamit kontaan nañ ci yéen di leen jaajëfal so bu am solo mm-hmm. ñëw nag bëggaat nañ coupe incha allah bu ko dee a bari incha allah incha allah ca day am incha allah waaw yàlla baax na taw feex rek ku baax ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup ku baax maa ngi lay siyaar naa la baax a baax mbaa yaa ngi am jàmm sant bu baax tur beeg sant bi Khadim Ndiaye coordinateur ADP Khadim Ndiaye coordinateur ADP Khadim Ndiaye Mm-hmm. xam nga ci lu bari. non xam naa ci tuuti rek. xam nga ci tuuti nan nga gisee tey Coupe d'Afrique bi ak euh, ni équipe yi joué ak yooyu noonu ak match Sénégal Gambie bi. waaw euh, boo euh, boo xoolee boo defee analyse. Mm-hmm. maanaam lu bari équipe yu bari maam am nañ am na mbetteel si ñoom quoi am na mbetteel ci man mhm. ci bépp sportif mhm. am nañ ci mbetteel quoi mhm. bii yu bari yaakaaroon na ne euh, maam euh, bii yu bari dana am ci ci match yi comme match yu demee ni euh, Nigeria comme match yu demee ni Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire yaakaaroon nañ ne première match am dana mën a dóor lu bari mais ba tey boo xoolee analyse boo analyser Euh, kii am quoi football am quoi uh-huh. maam des na tuuti quoi maam ki mu doon jàkkaarloog bu góorgóorlu woon tuuti rek uh-huh. match si nii lay doon uh-huh. wala mu dóor maanaam bi ni mu mënoon mais tey d' tey est ce que tax na war nañoo mën a juger ci première match yi aussi waaw d' parce que football moom surtout compétition yu demee ni comme euh, CAN maanaam début bi day xawa day xaw difficile touti mais deuxième match yi si ngay wona a mën ci nga mën a deug deug deug équipe bi baxna wala baxul ginaaw gi baxna wala ginaaw gi baxul mhm. milieu terrain bi baax wala milieu terrain bi baaxul mhm. attaquant yi baax baax wala attaquant yi baxul fofu nga ko mën a deuxième match mhm. wa ci nga ko mën a mais premier match yi mom mënoo ci gisee en 100% mais nak bo defee analyse touti quoi manam xawna na touti quoi ci premier match yi mais tay ku ci Sénégal Gambie Sénégal est champion d'Afrique mhm. premier match am ñu entamé ko contre Gambie mhm. ñu dóor Gambie 3-0 mais avec circonstance parce que Gambie dafa amoon rouge bien vrai que le Gambie bi rouge fekk Sénégal a ngi ko 1-0 ba voilà Sénégal a ngi 1-0 après Gambie door a jël rouge mais avec ak circonstance boobu non ñu Gambie ak le football bi et tout nous euh, ñu Cameroun Cameroun ñëpp xam nañ dafa mën compétition bien vrai que nag premier match am contre Guinée dafa nul yaa ngi dégg te ñu nag moom ak Sénégal xam ngeen match yooyu nu muy demee saa su ne du mës yomb te moom la ñu am deuxième match tey nan ngay gisee match boobu waaw bala avant avant ñuy yegg ci contre euh, Cameroun deuxième match bi damay euh, revenir tuuti ci suñ première match bi uh-huh. première match bi baax na uh-huh. mais baaxul ci beneen côté tam uh-huh. boo déggee ma ne baax na baaxul maanaam euh, boo xoolee Sénégal ba début bi maanaam na normal mais maanaam euh, match euh, Sénégal dëgg jeu bi nga war a xam ne ne moom moo war a nekk ci moom mm. ak doole ji nga xam ne moom la war a san en tant que euh, championnat Afrique mm-hmm. mu nekk champion bi mu yor titre bi champion nekk mm-hmm. champion bi tam maanaam ni mu waroon a doxalee dëgg dëgg dëgg bi war a dox dëgg ñaari piston yi maam gu demee ni Ismaïla sar Sadio maane seen dox dëgg dëgg dëgg dafa des kon maanaam sooy def analise dëgg dëgg mm-hmm. maam Gambie amul lépp luñ koy rapproché loo xam ne nii maanaam def na marché bu bon marché bu mu def baax na mais encore nag dañ leen i mutufe di leen xamal ne li fi ñu def baax na mais des na tuuti quoi waaw te boo xoolee sax man li ma gis mooy match suñu match contre Cameroun muy deuxième match bi yaakaar naa mooy match confirmation bi ci Sénégal wane que ni ñun champion d'Afrique lañ yaa ngi dégg pour wane ni ñun ñooy champion d'Afrique te ci match contre Cameroun bi lañ sooy xool xam am na classement classement bi mu def premier match bi baax na mais man sama gis-gis match bu mel ni eh, eh, eh, nu ñu koy waxati contre Cameroun man sama gis-gis maanaam Sénégal dafa am dafa ëpp doole Cameroun trop su fekkee maanaam euh, def neen analyse dëgg dëgg dëgg maanaam match boobu dañoo waroon def classement bi ñu def nii moom leen war a continuer te deuxième te liñ ciy changé leen dong laa gis ne moom leen ci war a changé muy neuf bi muy eh, eh, nu mu tuddati numéro 9 bi. maam bu ñu ko changé woon rek. parce que moo man sama gis-gis li mu war a dox dëgg li mu war a fournir dëgg. kenn moom moo ñu ko mën a jox. Mhm. muy eh, Jackson. Jackson moo ñu ko mën a jox. Mhm. man sama gis-gis moom moo ñu ko mën a jox loolu dong mooy changement bi. bu ko changé rek marché bi war nañ ko mën e gagné c'est facile. match contre Sénégal euh, Cameroun mhm. dañ ko wara gagner gagné. asalaamaaleykum kilifa gi. waaleykum assalam ni ngi lay nuyu. ni ngi lay delo di ziar bu baax. waaw ñu ngi delloo tur beeg bi. man maa ngi tudd Babacar Cissé. ya ngi tudd Babacar Cissé. Mhm. wa Babacar Cissé tay dañoo ñëwoon rek pour waxtaan ak yeen tay ci Coupe d'Afrique bi. Mhm. tay nak nga gisee Coupe d'Afrique bi. bon Coupe d'Afrique vraiment ni ma ko gisee am niveau. Mm. xam nga li ngay njëkk wax rek moy amna niveau d'abord. Mm-hmm. donc organisation bi ça va mm-hmm. mais ñun comme euh, toujours on parle de football. vraiment macha Allah suñu équipe bi ñu yoré quoi voilà am nañ jury dal am nañ jury am nañ jury macha Allah c'est suñu premier match contre Gambie voilà voilà je nan nga gisé nan nga gisé équipe bi bien vrai que nak am nañ victoire mhm. neex na trop mhm. mais nan nga gisé équipe bi baxna mhm. wala desna am na luñu wara rectifier wala amul luñu wara rectifier wa effectivement xam nga football mom toujours rek am na lo wara rectifier parce que tamit euh, bo xolé ossature équipe bi moy nga xamanteni am nañ ay blessés blessé yu ñu am ak ñi ñu dugal tamit vraiment macha allah mais boo xoolee équipe mhm. toujours rek am na loo war a rectifier tamit benn mbir boo xoolee lu tax keroog dëgg la dox na gagné nañu neex na gaa mais tamit nañu sóoraale chaleur bi tangay bi parce que 36 degrés ci ay professionnels ah, ah, ah lolu mom vraiment dafa xawa metti métti tuuti mais bo xolé équipe bi vraiment am nañ joueurs yi am nañ joueurs yi xëy na problème de positionnement nak mhm. euh, dina am mhm. voilà lolu dal mom mooy c'est vrai sax parce que en même temps heure bi ñu joué naaj bu tang 14 h mais alhamdoulillah ba suñu prochain mhm. match contre Cameroun bi nga xam nak mom lañu wara dajel euh match boobu ñu ngi koy joué à 17 h vendredi incha allah tay c'est seetaan nga match Cameroun ak euh, Guinée bi bon c'est daanuma ko daf ma fekkoon ma am fu ma demoon. Ah, nga am foo demoon milieu quoi moom moo tax. ah euh, d' mais mais mais yow tey nan nga gisee aussi Cameroun moom nga am. Mhm. deuxième match parce que Cameroun am na un point. Mhm. d'accord amna un point. Mhm. té Camerounais dañu dañoo mën compétition. bien mhm. vrai que nak premier match moom mënoo ciy juger ben équipe. Mhm. parce que tay ñun ñëpp xam nañ match yi ni mu gis nañ ko seetaan nañ ko mais pour man deuxième match bi ni la wara war xol nak équipe tay ku melni Sénégal en tant que champion d'afrique tay match contre Cameroun la wara gëna confirmer wan ni ñun ñoy champion d'afrique Afrique. dëgg la mais tamit xam nga football dafa am li nga xamante mo ci nek ñun gaay ñu ñoo ñuy sor mais ñun waruñu sóor gars yi. merci beaucoup dëgg la war nañ respecté nak ñi nga xamante peut être équipe bi ñuy dajal. dañ leen respecté jox leen cër bi mais quand même tay ñun waruñu mën a am ben équipe bu ñuy mhm. parce que ñun boo ñu xoolee un ñun ñooy champion d'Afrique deux mhm. tamit am nañ joueurs yi nga xamante vraiment tay ku len dégg wala capable nañ def lu ne mhm. attaque bi milieu terrain bi défense bi ba ci góol bi donc nak ba ci góol yi sax lay wax parce que am nañ góol yi nga xamante vraiment fu len équipe buñu démon ci aduna bi mën nañ war nañ fa mëna a mais xeyna choix la choix wu choix wu yeneen équipe la ñom ñoy xol sen góor yi góol yi nga xamante ñom ñoy ki mais grand pour vous dire vrai Euh, boo xoolee Cameroun. Mhm. man xëy na seetaan naa tuuti résumé bi moom ak euh, Guinée. Mhm. mais grand Sénégal tey ni may waxee ak yow. amul équipe bi nga xamante ni doo football moom te doo ko sóor ñun Cameroun moo ñuy sóor mais ñun sóoruñu ko Camerounais yi dama suivre benn ba ci mi ngi sax ci internet bi réseaux sociaux yi gars yi ngi koy kii mhm. Camerounais yi ils sont tellement fâchés dañu mer saaga nañ seen entraîneurs yi saaga nañ seen joueurs yi traité nañ leen de n'importe quoi mais ku xool Sénégal que ñoom Sénégal la xool affaire bi nga xam Sénégal mom lañu bayyi xel mom motax fum tollu ñom japp nañ ni ñom dañu am problème donc nak kon li ci am solo rek mom moy que ni sénégal nañu gëna taxaw gëna défor waat xolaat li nga xamanteni peut-être moy le bax li ñu jël ko dem parce que blessure il tamit vraiment daf ñu porter préjudice mm-hmm. mais dal li ñi ñaan rek moy que ni vraiment suñu joueur yëpp nek en forme taxawaat ba vraiment ba li ñuy entamé muy suñu deuxième match ñu na Cameroun ñu ñëw gagné ko ci voilà voilà voilà merci beaucoup Kiliba gi ñu lay jaajeufal ci sa disponibilité tam li ñu may ñu mëna waxtaan ak yow aussi mm-hmm. ci li nga xam mo jël ci kan bi merci beaucoup merci beaucoup assalamu alaykum sawna si alaykum salam tour bek sante bi rokay job rokay job rokay job bi nga sétane football mm, c'est rare nak c'est rare ngay sétane football xam nga équipe nationale xam équipe nationale xam nga ci dara xam na tout rek baxna euh jamono ji ni Coupe d'Afrique la ñuy joué xam nga ban dëkk moo organisé Coupe d'Afrique bi. ah non non xamoo ko de. xamoo ko en tant que sénégalaise. <laughs> non man du ma faral di suivre match nag. yow tamit waaw mais même boo suivre match Afrique moo xewle. ah <laughs> ba tey ma dimbalee la ko Côte d'Ivoire moo organisé Coupe d'Afrique. waaw mais xam nga seetaan nga match Sénégal Gambie bi quand même. bii passé waaw. ah nan nga gisee match bi. ah match bi neex na ni ñu commencé moom bu ñu ko continuer moom léppay baax incha allah. Ah, mhm. loolu rek daal nga ni ñu ko commencé ñu continuer ko noonu loolu yombul. ah nañ ko continuer noonu rek moo gën. Ah, incha euh, tay nga am sa premier match Gambie euh, yàlla dimbali ñu moom macha allah ñu gagné Gambie 3-0 war a dajeeg nag Cameroun vendredi incha à 17h tay nan ngay waxee nan ngay gisee tamit match boobu ñu nag Cameroun. ah match boobu nañ góorgóorlu rek defaat comme niñ ñu def waa Gambie rek. Hmm. ñu ko defee incha allah léppay baax. léppay baax de waaw B3 la mais bi 4 la ñuy dóor. 4 B3 la mais bi 4-0. et loolu dina neex de yéen a dégg Roqe moo ko wax de nee na comme Gambie lañ dóor 3-0 kon moom dafa bëgg ñu Dor Cameroun 4-0 Inshallah, allah na sa gémmiñ am barke té yàlla nako yalla def de toute façon li ci important moy yàlla na Sénégal Dor Cameroun Lool dal mo ci am importance. Inshallah. Euh tay bu lool weesoo da ngay jàngi non? non. waaw damay jàngi ban classe ngay def. première première ngay def ban école. fii Sanka. Sanka xam nga drapeau Sénégal. waaw. ayca ñu déglu ko nee na laaj naa ba xam na drapeau Sénégal nee na ma waaw drapeau Sénégal depuis maa ngi koy laajte ba léegi presque ñi ko trouvé bariwul les comme moom leen day jàng te première lay def ma laaj jox ma drapeau Sénégal ma xol vert zone rouge étoile au milieu. Hmm? étoile ban couleur la vert vert. wa yaa ngi may door wax mat euh, drapeau Sénégal nak xam nga étoile au milieu da ngay wax couleur étoile bi. ñu xam parce que amna drapeau yo xam dafa am étoile au milieu. mais foog nga duggal couleur bi ñu xam né yow yaa ngi door wax drapeau Sénégal. Mhm. mais merci ñi ngi lay jaajëfal. soxna si na nga def. maa ngi fi ça ba mbaa yaa ngi ci jamm maa ngi ci jamm bu baax alhamdulilah foo doon dem ni yow. nu ma doon ñibbi instant bii nii. da nga doon ñibbi da nga wàcc. maa wàcc yow est jàngi woon nga. ah damaa jàngi woon de grand. gis nga heure bi jot. waaw man lycée laa nekk. ah jàngi waaw. d' accord seetaan football. damay seetaan foot kay. Ah, seetaan nga premier match Sénégal bi. seetaan naa ko. contre kan la woon. contre Gambie la woon. ñaata lañ dóor Gambie. a ah, tamit jarul laaj 3 heures lañ leen. 3 heures lañ ko yu leer naññi. yu amul benn jiw. macha allah tey yow nan nga gisee woon équipe bi boobu ak équipe beeg joueur yeeg ñëpp. joueurs yi rek nga xam ne équipe bi taxaw te incha allah gëm naa ni coupe bi dañ ko indiwaat. incha allah ñu zumbuleeti rek. ñu zumbulee waat ba mu neex incha allah. Euh, xam nga drapeau Sénégal. ah drapeau Sénégal xam naa ko kay. wax ma ko. vert ah. jaune hmm. rouge étoile bi verte si jaune bi. merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal soxna si. waaw mbokku internet Lune TV gis ngeen ko gis ngeen euh, réaction yeeg yëpp gis ngeen ñi ñu waxtaanal ñi ñu laaj ñëpp tey nag loolu lañ leen indiloon ci seen émission CAN 2024 li leen jox dig daje ci beneen numéro. Thank you.